téléspectateurs et même de Média TV ñu ngi fii euh, di def sunu émission euh, Galle Aynabe ñi nga xam ne dañuy faral di leen ko baaxee euh, mu nekk émission boo xam ne dañ koy jagleel sàmmkat yi éleveurs yi mais nekkul sàmmkat benn comme sàmmkat alibi bi kesse wala sàmmkat moderne bi non sàmmkat yeb lañuy wax ñëpp ko bok waye nak dama leen di wax amna numéro bo xamné enregistré nañ ko wax nañ ci li nga xamné mu andak ak euh, jamono bu ñu waxee ànd ak jamono ça veut dire que tay gis nañ changement dañoo am nguur bu bees ñu am président bu bees wala dañuy waaj a am nguur bu bees parce que installé guñ euh, président bu bees ci biir loolu ñun ñi nga xam ne ñu ñooy éleveurs yi nasaraan yi naan éleveurs yi ñu wolof yi naan sàmmkat yi pël yi naan aynaabe euh, soose yi naan kantarlal wala mande yi naan kantarlal euh, mu nekk loo xam ne vraiment naka lañ yaakaar ne war nañ euh, nguur gu bees war nañu gunge wala naka lañu war a mën a accompagner ci sunu liggéey lu am importance la parce que aussi bu ñu toog wala bu ñu bàyyi ba gars yi ñëw ñu ne non ñun fii la xari jaar kenn ñu duñu wax ci ñun dee déedéet nit yow yaa njëkk Euh, présenter sa bopp ñun éleveurs yi nañ gën jot na jot na nag su ma waxee jot na nag dana yóbbu sama xel ci kooku di président Ousmane Sonko euh, bi muy dem présidentielle 2019 coalition bi jot na la tuddoon mais ñun éleveurs yi moderne bi jot na nguur bu mënta ka doon boo ñëwee nga wax ak ñun nga jëflanteeg ñun nga ñuy dox nga ñuy nemmeeku di liggéey ak ñun jox ñu sunu projet yi nga xam ne danga ñu ko war a jox ñu liggéey ci c'est le moment euh, euh, dama leen ko di profito nag di nuyaale association yi nga xam ne jot naa leen xam association élevage moderne yi euh, di ko commencé ci association bu nga xam ne moom la ñuy wax euh, Adam président fadilu di président bi président Issa Seka topp ci kon président fadilu Keita ak président Issa Seka maa ngi leen di nuyu ak seen équipe yëpp wàcc si association sa euh, bi nga xam ne moom wala moom la ñuy wax regroupement des éleveurs de la Balie ñu nan ko rek président Matar Sy nekk ci bopp bi

mu ànd ak président Ablaye Mbaye président Andipel mu ànd ci ak président borom yet bi man mi wax ak yéen président coordination des éleveurs de Comico kat ñu bokk defoon foire bu mag ñu de l'élevage du département de Kër Massane ñu am ci réussite totale di nuyu kooku di président président ADER di nuyu président Sami Diakhaté président Adel di nuyu président Khadim Fall Riyit Thiès di nuyu président euh, Amadou Diallo président Soukali Jur tam président Tambacounda di nuyu président euh, Bousso Kolda di nuyu président euh, Mamadou Dia Stanley, di nuyu président Khadim Fall reptel boutiwaon di nuyu président ki nga xam ne mooy président euh, bi nekk Mbour muy soxna su baax présidente bokk soxna Ami Diatta maa ngi koy nuyu di ko félicité waale mu nekk première jigéen bu jiite association éleveur laadum fii ci mim réew kon soxna Ami Diatta moom it mu ngi waajal foire bu rëy foire bu mag di ko ñaanal réussite total

ak benen président bi en tête ma ngi leen di nuyu ñoom ak président Bambey ma ngi nuyu la ñoom Khadim Fall di sama copain Khadim Bamba di al président fatik, ak président euh kon président association élevage moderne yëpp ma ngi leen di nuyu comme ni ma leen ko waxee ni ngeen gisee ni ma lim sax am na ñi ma fàtte ngeen baal ma ñi ma fàtte rek président Wakam bi ma nekk nii aussi ma ngi koy nuyu. maa ngi jégalu parce que mënuma ñeneen dem sama xel da ciy génn mu nekk loo xam ne élevage moderne dama leen koy wax euh, dañoo participer lu bëri ci emploi des jeunes président yi ma leen di limal nii yëpp te am na yu bëri yi ma bàyyi am na yu bëri yoo xam ne fàtte naa leen président Barnier maa ngi koy fàtte maa ngi jégalu ak président jàmm gën si Mbaaw mi nga xam ne ndeysaan yàggul dara ci biir Ramadan bi def nañ benn foire foire bu neex foire bu rëy

dañuy dajale éleveurs yi def foire ñoom ñooy jëndal éleveurs yëpp ndogu wala ñoo leen di toggal ndogu jour cérémonie bi ñu jënd seen nag bu rëy tëral ko éleveurs yi banneexu ci di nuyuwaale seen président bi di champion bu mag ak yeneen association yi nekk biir Géejawaay ak biir Pikine mu nekk loo xam ne association yi ngeen gis ma lim yëpp ku ci foire ay centaine cent et quelques box am na ñoo xam ne dañuy dem ba deux cent box ku mel ni it bu Thiès ak alet voilà ñooñu box yooyu yëpp ñi ñëw ci part di participer ci box di yorol gaay seen xar yi boo yooyu déjà ñi ci ëpp bëri nekkuñu sax ci bergerie ñooñu dañ leen di fay pour campagne 10 jours imaginel 10 jours foire bu ne 10 jours ñaata centaine de personnes la gaay di fay loo xam ne pour ñu yoral leen seeni xar rek am na différent loolu wuute nag ñi nga xam ne ñoo yor toppatoo jur gi ci biir bergerie yi kon euh, di tallalaat loxo rek nguur gu bees bi <laughs> waa Pastef bayaguma leen te duma leen masa bàyyi dinaa leen tàllal loxo di leen ñaanal nag toujours yéen bi woyof seen kaw président son excellence Bassirou Diomaye Faye séeréer la nag sama jaam la quoi parce que man Sall laa sant Euh, li nga xam ne dama bëgg ñu bàyyi ci xel bu baax géniteurs yi ni ñuy joxe ma géniteurs yi nañ ci bàyyi xel parce que vraiment dafa def impact boo xam ne comprendre ko bi ñu yàgg joxe ma géniteur yàgg na de mais ba tey tabaski bu jotee xar yi jógee ci àll bi di ñëw ay rek ngay gis ay ordinaire kon géniteur yi ñuy joxe bi mais fan lañ koy dugal pour man di géniteur yi ñi nga xam dañ koy joxe xaw projet pour man dañoo leen war a ci pour améliorer race bi race local pour ñu mën boobaa métissage waxuma la dum pire champ mais métissage sax am Ils ci lu à 10 mois 12 mois wala 13 mois âge 15 20 dana opu xaru ordinaire bi nga 4 ans wala 3 ans légui nak géniteur yoy ñi ci bi wala jënd géniteur géniteur bénéfice wi walla résultat bi gisaguñ ko ñu ngi dugg ci àll bi waaw ñu ngi dugg ci àll bi mais seen seeni doom daal gisaguñ ko xaw ma naka la ñuy duggee ci àll bi nag loolu question la lu ñu war a mat a bàyyi xel la kon yéen ñi nga xam ne yéen ñee nguur bu bees bii ñëw marché géniteur boobu non seulement que ni ñu koy joxee éleveur laadum yi nee nañ d'accorduñ ci du éleveur du éleveur laadum yi yëpp parce que am na éleveur laadum yoo xam ne ñoom ñoo dañ ciy gagné. ñooñu duñ ci wax mais li ëpp ci éleveur laadum yi gagné ci te nee nañ d'accord wuñ ci te man mii def émission Galle Aynabe fii ci MMD Média TV d'accordu ma ci waxoon naa leen ko ci sama beneen numéro géniteur yi ni koy joxee dañ ko war a changer dañ ko war di jox amul naan danga nga war a indi papier nga bokk ci appel d'offre bi déedéet man gisewuma ko noonu ni ma ko gisee dañ ko war di jox organisation yi mooy association des éleveurs ñooñu lañ war a woow ñu indi seeni papier ñu def appel d'offre bi ñu koy gagné association bu ko gañee ren déwén yow doo bokk ci compétition bi yeneen association ñoo ciy bokk bu ñu defee noonu ba mu daj ñu reprendre waat ko man noonu laa ko gisee booba association bu ko gañee danga nga war a mën a séddale say membre ñu mën ci jënd xont parce que ngeen baal ma ni ñuy jëndee géniteurs yi doy na waar de dama leen koy waxaat doy na waar trop dañuy dañuy woñ loxo éleveurs yi surtout éleveurs yi ndaw yi xar bi nga xam ne yaa ngi ko war a jaay lu mu tuuti tuuti cinq cent mille wala huit cent wala un million ay deux cent cinquante mille lañ koy jëndee ci yow loolu il faut ñu ko c'est le moment il fallait ñu souligner ko kon yow président Fadilou Keita euh, warul nekk warul nekk kumpa ci yow léegi parce que éleveur nga yàgg nga sunu biir champion nga président nga sunu biir kon bu dee yàlla def na nguur gu bees bi nga xam ne war na installé wu nga war ci bokk vraiment loolu ñu ngi lay tàllal loxo yow ak monsieur le maire Abdou Koli di jury ci éleveurs yi champion bu mag moom it mu ngi ci biir yéen ni ñuy joxe marché géniteur yi war ngeen ci bàyyi xel ngeen xool ni ngeen koy ni ngeen ci waxtaane ak kilifa yi nga xam ne yéen ko bokk ak ñoom muy kilifa réew mi séddale bi nañ koy tas ci biir organisation yi wala at bu ne ñu ne ñaari association yi ñuy gagné appel d'offre bi ñu séddale ko seen diggante ñaari association boobu ñu xool seen membre yi nga xam ne ñoom la seen loxo jotul seen ginnaaw waxuma seen membre yi nga xam ne ay milliardaire lañ de wala ay millionnaire de déedéet seen membre yi nga xam ne dañuy taabal taabal ñu kenn ku ne ñu jox la ñeenti xar wala juróomi xar wala ñetti xar ñu ne la indil ñeenti xar wala juróomi xar ci prix bu tane au moins waxuma prix bu bon bi mooy prix bu bon bi mooy deux cent cinquante mille trois cent mille deux cent mille mooy prix bu bon bi xar ordinaire naka la jaayee jare deux cent mille ñu bëgg nga jaay leen seeni jeune say jeune mal deux cent mille nañ waxante dëgg loolu sérieuxwul yenul maanaa loolu rey càmm gi la loolu rey liggéey bi la rey élevage moderne bi la parce que loolu mooy ay junni junne nit di liggéey benn nit wala ñaari nit di ko njëriñoo loolu yàlla nañ ci yàlla musal li may wax ni suñ ci waxul suñ ci jógul day rey suñu càmm gi day rey suñu élevage laadum bi moo tax ma ma ciy wax neexaluma ci kenn nag tagguma ci kenn nag sam parce que li ma wax ni dëgg bu wér pëng lay wax ci sama dëgg lay wax moo tax ragaluma dara ci li may wax maa ko assumé wax ko responsa maa assumé samay responsabilités yi ma ciy jën géniteurs yi ni ñu koy joxee d'accordu ma ci du dégg du yoon ci li ma yaakaar te gëm te gis du dëgg sax du yoon pour man parce que association yi lañ ko war a jox mais individuels yi waratul jël marché géniteur laadum géniteurs yi ba pare bu ñu ko jëlee ba pare bu ñu gañee géniteurs yi bu ñu leen jëndee bu ñu ko jébbalee nguur gi la xawma projet bi nañ def ngir yàlla nañ koy jox pël yi nga xam ne dañoo am ay coggalu coggalu xar ci àll bi ñu dugal ko seen biir xar yi mu tëb seen xar yi pour tabaski bi ñu mën di gis njëriñ bi ba pare doomu jigéen yi boobaa métissage yi jigéen yi dañ leen di téye góor yi ñu leen di préparer indi leen jaay ko tabaski bu bu jaaree yoon 5 ans rek 5 ans rek problème ay sunu race bi dina améliorer bu baax mais bo gisee ba tey kurkur bi bari ci all bi pro marché géniteur yi wala géniteur niñ koy tassé ci all bi jaarul yoon teguñ ko ci yoon loolu moo tax kon yen lay waxal nguur gu bees gi toog na ngeen gëstu li may wax nii fexe ba marché géniteur yi ak projet géniteur yi fexe leen ba géniteur bu ñu tas bu ñu ngeen jaay wala bu ñu ngeen jënd pour joxe ko ci àll bi nangeen ngeen fexe ba bu ñu ko jox madame bu ñu ko jox ay ay autorité wala ay autorités yu présenté ci village yi wala ci àll bi déedéet nañ ko yóbbul ci coggalu nag xar yi fi ñuy nekk ñu dugal leen seen biir ku am téeméeri xar ñu fexe dugal fas juróomi xar géniteur ñu def ñu koy defal tuur mu jël kuyam yëpp génnee la mu dugal kuyu laad mi ñu koy tëbal keneen noonu keneen noonu bu ñu defee noonu rek changement dina am Sénégal nag changé ko yombul yombul de ngeen baal ma àq nag li may wax ni def ma leer Sénégal changé ko yombul parce que bañ nañ ko wax dëgg bañ nañ koo xam ne day laal foo xam ne mooy logique dañuy ne ñuy am na ñu bëri ñooy naan def ñuy yàqal alors que man de man Bathie sal ma yàqal fukki nit mu nekk arrangement peuple bi yëpp moo ma gënal ma arrangé fukki nit mu mu nekk mu yàqal peuple bi yëpp man moo ma gënal je préfère ma def loolu bu ñu jógee foofu nag danaa xuusaat tuuti élevage laadum toll na foo xam ne nañ ko wax dee nee sortant mus naa ko recevoir président son excellence Macky Sall bergerie Xaadim Rasul bu son excellence foo Omar Sow yàlla na ko yàlla yërëm te ko keroog dafa am question bu ma ko la question boo xam ne mosoon naa directeur de l'élevage Dame Sow maa koy au passage ma ko mais monsieur le directeur dafa am lu Toubabi, yi dañoo man ci xaj man ñu ci fas man ñu ci man ñu ci pigeon ak lapin ak lu bëri ñu ngi koy dugal ci ñun champion galactique champion Saladam 2018 Aldibo champion Saladam 2020 Esper champion Saladam 2022 magistrat champion Saladam 2016 Nation Unies champion Saladam 2014 maa ne sunu champion lan moo tax duñ leen mën a ci biti dem exposer ñom seen exposition comme salon de Versailles lan moo tax du mën am té ñom liñ ñu mën yëpp ñu ngi ñukoy koy indil ñun suñu mouton laadum bi nga xamné dañu ko man ci aduna bi ñu xar dem exposer ci wala ci tubaab yi mu nekk lu doy waar en Afrique sax musuma gis benn éleveur laadum bu génn dem exposé foire bu am Mali wala Burkina wala Côte d'Ivoire wala Maroc mais bi mu waxee question boobu président son excellence mu ne ma naka ngeen di nattee ak seen natt fu mu toll ngeen baal ma bi ma ko waxee sax ek délégation bi ñu àndal biir biir bi ñëpp yi yëkkatindoo loxo ne non en vrai de loolu ah vraiment loolu loolu warul mën a nekk parce que ñoom ñëpp d'accord nañ ne foofu li ma wax tubaab bi li ñu man yëpp ñu ngi ñu koy indil ñu ngi koy fi exposé ñun li ñu leen man mënuñ ko fa yóbbu mënuñu ko fa exposé xanaa ma ne leen bu ma waxee gars yëpp d'accord ne bon question bi nag bi ma ko posé woon président

en 2021 la ñëwoon 2020 la ko recevoir BKR man ak délégation bi mu ngi 1m20 autour au garrot ma expliquer lan ma expliqué ko lan moy autour au garrot Je ko xar bu ëpp ci TP tour de poitrail wërale bi dënd bi mu ngi tudd Aldibo mu ngi wakam mu ngi am 151 TP 1 m 51 Je ko xar bi nga xamné mo LCS officiel boobu taan nattaguñu bay daan ñu ngi 165 boobu taan ñoom préfet la son excellence Omar Sow ne ko ak 170 maxu sëy foofu nag jotuma koo naan du officiel parce que comme que wax nañ ko 170 maxu sëy dañuy bay 170 boobu mu jàll bon xëy na loolu marketing la ci sax ñun suñu biir bon mu ne 170 LCS mané ko xar bu ëpp ci poids à l'époque galactique la woon nekkoon champion saladam 2018 mané ko mu ngi 174 kilos moom balaa mu may wax dara ndeesaan à l'époque mu ne ma ana galactique parce que xam na ne galactique mu ngi ci bergerie bi ma ne ko galactique mu ngi boxe bële danañ fa dem seeti ko mais bi ma paree mu ne ma noonu lii warul mën a poser problème ma ne ko lii de lañ toll gum ci sunuy évaluation yi nga xam ne dañ koy nef def di xool sunu liggéey fu mu toll ma wax loolu bi ma ko waxee euh, mu ne ma loolu waru mën a poser problème mais sunu gars yi kon yéen nguur gu bees bi côté boobu aussi dinaa leen tàllal loxo xam naa li ma amoon wala li ñu amoon ci waxtu li ci des bareetul danaa teg sama loxo foofu mais nag di leen ne na ngeen fexe combat yi ma nekk man Bathie sal dama koy continuer samay combat bëri na mais bokk na ci li nga xam ne sunu élève sunu laadum yii il fallait ngeen dimbale ñuy fexe ni ba sunu ndawal lu laadum yi ñu koy importer di ko yóbbu di ko jaay bitimi réew ba pare sunu laadum yi seen bopp ñuy fexe ba dem di ko exposer ci bitimi réew sous région bi surtout ci tubaab bi ak naar yi nga xam ne euh, ñoom dañoo foog ne ñoom rek ñoo ñu war a indil seen i yëf ñu nit maa ngi leen di tàllal loxo sama combat boobu duma ko mës a wàcc duma ci mës a noppi duma ko mës a bàyyi il fa la ñuy fexe nu ngeen ñuy accompagner ba ñuy fexe yàpp laadum ñu koy importer ba pare muy am ci supermarché yi ba pare yàpp laadum aussi laadum ci boppam encore dem di ko exposer au niveau international su ma waxee yàpp laadum ñi koy exposé nag ci supermarché yi di ko jaay ci sunu marché yi di ko jaay au niveau international importé métissage géniteurs yi nga xam ne dañ koy joxe ba ci àll bi dañ ci war a mën a participer mu nekk loo xam ne dama leen koy wax ngeen bàyyi ci xel bu baax kon élevage laadum bi maa ngi leen di remercier yéen nguur gi maa ngi leen di souhaiter bonne réussite son excellent monsieur le président Bassir Diomaye Faye ak équipe am yëpp merci beaucoup yéen téléspectateurs, Galle safo nga xam ne yéen a di ñu BKR selko, borom merci beaucoup wasalaam